waaw euh, mbokk yi siyaar ak magal jéem a indi quelque éclaircissement par rapport ak mbir mi xew port de Dakar ki fa nekk tey mi ngi tudd wali Diouf bojan effectivement di jar baatu ci Ousmane Sonko waaye Waly juf Badiane ki mu wuutu mi ngi tudd Mountaga Sy Waly Diouf Badiane mu ngi dëkk Ziguinchor comme ni Ousmane Sonko dëkkee Ziguinchor ñi dégg ñi am dégg-dégg bu ñu déggee ma waxee nii rek xam nañ lan laa bëgg a wax parce dama dégg gaa yi naan quatre cent yëpp ci benn dëkk lañ dëkk jullit du fenn nit ku honnête du fen nit ku bax du fen Ils wax personnes yi syndicat bi wax arrêté ces contrats... bu nous lu ci munta personnes par rapport ak information yu wér te wóor yi ñu jot jot 200 personnes yoyu amna ci ño xamante sax Kolda Tamba Fatik, Mbour Thiès Dakar Saint-Louis partout lañ leen sélectionner recruter leen lolu na leer té ñom ñi di wax 400 yoyu nonu ñuy wax di leen joxoñ di naan benn dëkk

nenañu aussi dañ leen recruter won pour port ndaayaan c'est pas vrai manipulation fi gaay nekkon ba manipulation lañuy def léegi faute bi wala djuf Bodiang def moy dak ba pare ni damay càmbar bala nga dak da ngay càmbar ba pare bu jaree dak nga dak bu jaree arrêter contrat nga arrêter contrat mais arrêter contrat ba nopi ni

na ko gars yi dem seeti da ngeen ñaw lamiñ rek neex lamiñ di wax dem leen def seeni recherche yan jafe-jafe la Touba Fall amoon diggante mag waa port de Dakar te Touba Fall moomule dafa am ñoo xamante ne dafa bokk ak ñoom te ñu ngi ci cabinet boobu noonu di def audit bi te Touba Fall Waly Diouf Bodiang moo ko indiwaat def ko conseil technique naka la conseil technique. den DG di defee audit ci société wala ci direction mënul nekk nañu wax dëgg weng wengal bi gaay di wax lu wér te wóor la te gaay dañu weng wengal léegi lan moo nar a am Waly Diouf Balan Waly lan la nekk di di tante moment yi nii naka ngay nekkee ñu nommé la DG nga commencé ji jot ay CV di dajale commencé di daq ay nit parce que da nga bëgg tëgg ay nit placé ay nit wax leen ko mu leer wax ngeen ko ci seeni biir sorti ni yéen ku bokkul ci projet bi du ngeen ko sédd mais projet bi du dul Sénégal te projet bi dafa existe wul te Pastef dafa mënul doon Sénégal maa di gars yi naan la majorité déedéet majorité par rapport ak ñi voté na wax ji di wootu moo ëpp solo mom dafa téegum ay ay CV te CV yi ci ëpp ñu ngi jóge e, kër kër Massar dal la fay wër base politique bëgg tëgg ay nit pour teg ay nit loolu la Waly Diouf di tante mais inspection du travail dofuñu doomi réew mi dofuñu bu fekkee nag dafa am ñi fa am ay contrat fictif maanaam nga am contrat te musoo xëy buñu la daké man duma ci wax buñu ñu arrêté sa contrat ken du ci wax bu féké muso xey muso gont muso pointé lolou ken du ci wax lolou képp kuy gor képp ku bëgg Sénégal do ci wax parce que koko da doon lekk xaalis te musta xëy loolu ñun dañ ci d'accord ñun parce que ñun dëgg mo ñu taxaw dëgg mo ñu tax jug mais ñi nga xamante ñi ñu ngi doon xey ci heure di wacc ci heure am seen contrat mu jeex nga war renouveler nga ni du ci pour lan parce que bëgg leena ne indi say nit lolu mo fi nek benen bi dafa am lo xamanteni sénégalais yi xam ko ñi ñu arrêté contrat ba ñom jottu ñu benn notification jotuguñu benn notification buy wane ni yow yow mi kat arrêté nañ sa contrat ci communiqué la ko ku fi sa contrat jeex duma renouveler la du ma la téye dama lay dàq loolu nag li mu wundu ñëpp xam nañ ko leneen li mooy Mountaga yi ki mu wuutu mooy kan mooy Aboubacar Siddiq Bey Aboubacar Siddiq Bey kan la wuutu Cheikh Kanté Cheikh Kanté personnes yi ngeen bëgg a jël nii ni ni quatre cent yépp ci mujjee moo ko fa recruté jël ko nag bugg ko buub benn dëkk bu nekk Fuuta amalgame ngeen nekk di def mais nit ñi dofuñu senegal ñëpp tëdd mais kenn nelawul ñëppay dof lu mais ñëpp am seen xel yu mat sëkk def leen li ngeen di def te bu leen ci nëbbatu su ko defee kart gi leer maanaam lu béy xam boote ko doomam na Sénégalais yi xam ni Waly ba Badiane dafa def lu ne weng ba pare wëlbatiku engagé ay nit fay leen pour ñu koy défendre loolu jaru ko en fait Sénégal wax yéen a wax jub jubal jubanti man ma ni leen jubul jubulul jubbantiwul ku jubul muntu jubal te muntu jubal muntu jubbanti ñett kaddu la donte ne slogan bi Ibrahima Fall moo ko moom mais man dama leen di fàttali ku jubul muntu jubal bay jubanti na sénégalais yi xam ne da ngeen di manipuler loolu mooy li wér te wóor